le alhamdulillahi lazi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lazi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp te day mel ni suñ nuyoo imaam rek nuy nañ ñëpp kon sëñ Sidi ñu ngi lay nuyu luy jàlle suñ nuyoo ci yow nga jàlle ko ci mboolem yëpp ak suñuy kilifa yëpp yi fi tegu xam naa wax ji du gudd xanaa ñu fàttalante rek orma ji ñu war a jox sëñ bi te lu bari manqué orma ji ñu war a jox dëkk bi te lu bari manqué orma ji war a jox taalibe yi te lu bari manqué xam naa jamono ji fi mu toll moom doy na waar lool ndax dafa am ñuy jàngale ak taalibe te mokk ko jàngul tere nag moom daanañ ci wax soow mu sew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 mooy xaaya bi déedéet murid dañ koo tënk ci bëgg sëñ bi ak liggéey sëñ bi ak doog ko jox kon addiyee mooy troisième point bi bëgg gee jiitu liggéey bi topp yi daa mel nag ñaari ñaari jëkk yëpp dañ koo sàggane léegi gisal benn bi def nañ ko joxe sa xaalis daal manqué to dara ak nga ci yaay murid saadax bi te murid saadax nag loolu ñi ñu tudde yoru yoon xaalis di jox sëñ bi sëñ bi tam seen woon xaalis ñoom waaye def digal digal leen ñu def ak leen ba rek li ñu seqan ak moo tax ñu am li ñu am kóor gi itam ñu jóge nii léegi ndigalu suñu borom rek la te daam lañu suñu borom digal digal nañu ci ak njëgal digal nañu ci ak goreel ci sawara digal nañu ci yërmande te bu ñu wéyee ndigalu sëñ suñu borom lim mu def rek yàlla mën nañu koo defal takk ko mbàng ngir sàkk ci barke ñu jéggal sa bàkkaar yu jëkk ak sa bàkkaar yu mucc noonu la ndigalu sëñ Tuubaa demee noonu la joxe sañ tubaa pour ma demee léegi nag yooyu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 tabagay dem da ngaa ànd ak mbooloo kon xam ne loo am sëñ bi ko may kooku nag mën naa bàyyi xel barke boobu nag weesuwul doo ko xool gis ko doo ko làmb daj ko mën ngaa tëdd ba guddi soxla million dikk la nga làmb yoo sa poche benn dërëm waaye soo demee ba bët set soxla soo demee ba dee des la bàcc daan pàcc digg ba bi gita ci mbaam nga bi des seen njaboot loolu la fi sëñ Tuubaa wax te buñ ko dee sàmm di ko soxal ba ak dara du fi jot bàyyi na fi njaboot gu mbaram njaboot war nañu yoon teg nañ ci yoon léegi nag ñii jàngul li tare ñoo ñoo ñoo sikk si jàngoo la may tubaab nga jiite dayre wala nga jiite ak kuréel walla mbooloo jàpp ne yaa gën a xam ñëpp sëñ bi sëñ bi nekkul foofu mënee su ko nax <coughs> buñ nax suñu bopp buñ jëy suñu bopp dëkkam bii lim fi bañ nañ ko ko bañ le lim fi bëgg nañ ko ko bëgg le ñi fi ñëw ñëpp benn maxanaa andil wala wala matière bëgg sëñ bi lëggeel ko di sàkku dem am bopp wala nga wut nga bëgg nga bëgg alal moo li fenn ko am yoon commerce yi dëkk bi am nañu ci bew commerce mu moog bewaan ndax ku ne xam na xaroon daa bewoon ak foog fa mujj kon bew amul amul njaay kon ku ne ci dëkk bi yàlla maa ne gan doo génne asaka daanaka di jox way néew ñu joole te soldat dafa bokk taamu dafa bokk ci yoon bi dimbalante moo tax suñu borom indi euh, joxe joxe asaka waaye joxeetuñ ko joxeetuñ addiye waaye dañuy xeex sëñ bi bu kàddum jógee ñu lànk bañ koo def léegi sax tane waaye am na bu njëkk ñoo xam ne sëriñ bu yor soxna ñu bëgg koo takk tas takk ko ndax alal ak bew waaye ñëpp doon def ñëpp kenn mujjut takk alhaakumu takaasur hattaa mu maqaabir day day ñëw te day bette te war nañ koo bàyyi xel baax a baax kon wax ji du gudd dañuy sant gërëm tey ñaan rek yàlla jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah